dal leen ak jàmm ci info 221 seen bi leen di jox xibaar yu wér te wóor abonné leen ngir dara bañ leen raw ñu wax nag ci leneen wax rek uh, ci xale bu jigéen bi nga xamante ne dafa ñàkk bakkanam foofee nag ñu wuyoo si turu Marie Guèye moom nag ñu Marie Samb ñu gën ko xam sax ci turu Marie Guèye nga xamante ne gendarmerie ñu ko tegoon loxo ginnaaw bañ ko ramassé ca booru 22h foofee ca Ngor procureur de la République nag jot na fësal ginnaaw autopsie bi nee na nag dafa ñàkk bakkanam ci anam joo xamante ne amul benn gaañ-gaañ maanaam c'est-à-dire mort naturelle kàddu yooyu nag la docteur Babacar Niang weddi na ko ba mu set wi jàpp na rek kii di. moom mi nga xamante ne mooy assistant mooy euh, docteur Niabou Souma assistant mi ngi daal di rejeté nag bloc cause ak décès yi nga xamante ne jàpp nañu daal lépp loo xam ne procureur wax na ko ci décès bi amul ndaxte jamono ji sax moom médecin bi lee jàpp na ne procureur daf leen di saaga te yenn yu muy wax te amu ci benn xam-xam ci wàllum faj nag waru ko di ko wax nee na mënuñ ko promettre war rawatina sax ñu daal di lu ñu waroon a def kay mooy arrêté gendarme yi nga xamante ne ñoo def lu ñu mel laata nag ñu naan dafa faatu ci mort naturelle maanaam boo xamante ne amul benn gaañu gaañu docteur ñaa nag mer na ba futu jëmale ko nag ci ki nga xam ne mooy procureur nee na nag du médecin nay saytu yenn yi nag bu autopsie amee rek ñu profito daal di wax ne rek ne dara jotu ko mort naturel la waaye nag ñoom ñi nga xam ne ay pajkat lañ xam nañ bu baax a baax koo xamante ni dafa dee naturel ak koo xamante ne nag dafa dund ay trouble laata muy génn àdduna xibaar la boo xamante ni docteur Babacar Niang fësal na ko ci page Facebook am ngir rek méttit lu kàddu yi nga xamante ne nag dubbee na ci kii wàccaayu 2024 ba tey jii sax nag mbokk yi kii di Abdoulaye Tine nekk ab avocat moom it samp na ndënam ci élection ñu war cee nemmeeku nag ñu bëri ñu bees yoo xamante ne rëñ ji daal daanaka bari na moo xam avocat waaye tamit premier ministre yëpp nekkoon nag ci jamono kii di euh, ki ki nga xamante ne rek euh, mooy Macky Sall ñoom ñëpp nag ay candidat lañ jaarale ko ci Abdoulaye bu Dionne waaye tamit Aminata Touré ak ñeneen ki ci mujj nag mooy Souleymane Ndéné Ndiaye mi nekkoon premier ministre ci Abdoulaye Wade moom it fas fas yéene déclaré candidature am niki niki suba fas yéene nag artu